télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax dellu amaan mbégte ànd ak ci xibaaru timis yi la ci gën a fës dina bokk ci màkkatal mu karam ujaay ji Sénégal yi fa ñu ngi ciy wax ñett ñu ca ñàkk seen bakkan nee nañu information la boobu délégation générale pèlerinage moo ko jot ginnaaw bi it ci la ñu yëg ne bu njëkk bi am na benn doomu Sénégal bu ca ñàkk bakkanam ca Médine ka ca des ñu ne ca boori Kaaba ga la def accident njiitu réew mu def di ca tiis loolu lu ni mel boole ceekit di ñi nga xam ne ñoom la seeni mbokk des ca màkkatal mu karam ni ma ko waxee toll ci ñetti doomi Sénégal di ujaaj ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku fii ci ndakaaru ay quartier yu ci mel ne Wakaam ak Yoof ak yeneen ci diwaanu ndakaaru askan wi tëgg seen gémmiñ di wooteeg wàllu ñoo ngi dund coono bu dul jeex li ñu bëgg mooy ndox mi dellu si mel nam meloon eh, dinañ leen demal ci reportage euh, ci quartier kon ci reportage ci xibaaru timis yi leneen loolu it am na bopp borom kër yu bari jamono ji moo di tabaski bu dul xar di yëre yi gune yi war a sol wala dépassé mu war a àndal ñu bari ci ñoom nekk ci jaaxle jamono ji ku ci toogoon ci nen du toj ndax jamono metti sëkkatal leen ñu wéete lool député yi ci assemblée nationale tey jii kon doon nañ amal ab euh, séance euh, jëm ci tëj session bi député yi fare ci wi askan wi jaaree ca lu teg loxo bi nga xam ne teg nañu ko loxo ay député ci euh, at mile ñuy am yaakaar ci ne nag bu fekkente ne dellusiwaat nañu daañu def seen kéemtalaay kàttan ba lu ni mel du ñu am ndax député du nu nekk rek lañ ko war a mën a jàppee ñoom député yi seen xalaat dinañ ko déglu ci xibaar yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ngeen taxee lu ma faram fàcceel leen di nuyu di leen sant di wéy di rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci boppu xibaar rek la duggee ak yéen ci yaatal gi doore ñetti ujaaji Sénégal yee faatu ca Makkatal Mukarram mu di xibaar boo xamante ne ji ñoo ngi ko jëlee ci délégation générale au pèlerinage ñuy xam le ne kon ci étape bu njëkk bi mu di étape bu Médine bi ci la benn ujaaj euh, Sénégal faato am na ko kit ci boori Kaaba gi ci la ñàkkee bakkanam ci autoroute bi ndax accident boo xamante ne ji def na ko euh, lu aju ci xibaar yooyu xamante ne ji consul général euh, ba ca Jidda moo ko joxe yéenekaay bi di Soleil daal ci dellu si ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu nag ñooy ñan mu di identité yi jotuñu leen euh, jotuñu ko wax njiitu réew Macky Sall it ci tweet bu mu def kon tiisloo na li nga xamante ne ji moo dal ujaaji sénégalais ca mu Mukarram jébbalit euh, njaalu état bu Sénégal di jaayleet njabootu ñi nga xam ne ñoom la fa seeni mbokk des waxtaane leneen fii ci eh, réew mi mu di ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku ci quartier yu bari ci Ndakaaru fu ci mel ni ca Wakaam ak ca Yoff seetlu gi moo di askan wi ku ci xëy ubbi robinet dara doo ko gis noo nekkoon lañu koy jàppoo mu ne ñu ne nag eh, doy na waa te it na bëgg nañu ñu dimbale leen ci ndax dañoo soxla am ndox reportage Cheikh Diop ak jafara eh, Ba ñu teewlu ko. robinet yi daanaka xelleetul lu ni mel nekk ay bés boobaak léegi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ñuy artu di xam ne rek ne ñàkkum ndox mi doot na lu leen sonal lool ñu nekk fii ci Wakaam. léegi mu mat ñaari weer mais robinet bi moom dañuy yeewu 3 heures du matin di root ba 7 heures bu tëjee 23 heures lay ñëwaat des fois sax mu ñëw minuit des fois dinañ toog sax doo am benn ndox boo taalee compliqué na nag te comico bii laa remarqué loolu. ginnaaw wakaam ñu wutal yi fu ñu naan yoof file itam lu ni mel lañ fi nemmeeku robinet yu tëj. ba jaaxal askan wi. mbir mu ñuy ñaawlu parce que ñëpp xam nañ ne ah, ndox ah, dafa bokk ci li nga xamante ne doomu aadama daf koy soxla. Ah, soo xëyee war nga sangu war nga julli donc da ngay jàpp war nga sangu et donc boo amulee ndox dafay xaw a am benn stress boo xamante ne bi daf lay daf lay daf lay habité te li ma gën a jaaxal nag mooy période ajjuma période bi nga xamante ne si ngay waaj dem juma yoo foofu doo am ndox. metti metti na metti na metti na loolu la mën a wax daal parce que di root balaa 6 heures du matin ndo robinet bi tëj doo am ndox doo am ndox doo am daara si ndox sonn nañu ñun jaboot yi sonn nañu suñu njaboot yi sonn ñëpp sonn nañu. ñuy waajal li nga xam ne nag moom moo di euh, bésub tabaski ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi di soxla ndox saa su ne ngir ay soxla yu wuute. am nga ndox mooy lépp ndox mooy lépp veille fête tabaski surtout nga bëgg rey say xar say xale sangu dem julli ji ak yooyu noonu yëpp te am loo ndox dafa metti ak tabaski bii. xam nga nga war a yeewu di root pour préparer wu tabaski bi day métti. dañu bëgg soxlaa ndox en permanence te ñun amuñu moyen pour ngay ngay ñu bari bari bari xamuñu naka la ñuy conserver ndox pour que ndox moomu mën a nekk ndox mu sell donc ndox mu courante mi vraiment di ko am aussi daf ñuy aidé ci lu bëree bëri bëri. Eh, ci loolee itam ñuy ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité étatique yi dikkaat ak ñoom ci ak ndimbal bu ko defee robinet yi mën a xel ñoom itam ñu mën a jëfandikoo li nga xam ne nag moom moo di ndox mi si lu leen soob. kër gi ñu dénk séddale ndox mi ci réew mi mu di seen o àdduna ñu jëmee ci ñàkkum ndox moom mais lenn ci askanu ndakaaru di jooy wax nañu li ko waral liñ ko songono mu di consommation bu am doole bi moo ko waral Papa Abdoulaye mbay di dalal xelu consommateur yi mi nga xam ne kon gën ko yàgg fii kàllar ba yëf yi dana dellu mel na meloon ku soxlam ndox mën koo jot ca jamono jango ko soxla directeur bu seen o la ñuy teewlay kàddoom Papa Abdoul Papa Abdou mbay ñu déglu ko ak Cheikh période bi ñu nekk nii nga xam ne ñun moom la ñuy wax période de pointe moo tolloog jamono boo xam ne nit ñi li ñuy soxla ci ndox dafay yokk bu baax a baax quartier yooyu dañ fay nemmeeku ay jafe-jafe mooy ci wàllu ay interruption momentanée du service d'eau donc loolu mooy li nga xamante ni mooy situation bi ñuy dund actuellement nii. incha allah incha allah fi mu nekk nii daal bu amul benn perturbation majeure boo xamante ne am na ci installation de production yi incha allah fii suba jàpp ginnaaw suba nit ñi dinañ retrouver une bonne distribution d'eau ginnaaw ndox meeg ni mu ñàkkeek ni mu sonale borom kër yu bëri ñu wax ci leneen loo xam ne toggoon a jamono ji fitna borom kër yu bëri mu di tabaski gi ak wataay gi ku ci xam-xar tiitalul la tiital mooy yére yu njaboot gi war a sol wala xaalis boo war a nduggee ngir tabaski gi jamono mitti sëkkatal leen ñu nekk ci jaaxle firnde li mi ngi ci biir reportage a Ndiaye ak Mar Dieng ñoo ñu ko defal. fan yii yëpp mi ngi doxantu di wër dara li xam ni dañ fay jaay xar. boobu ba léegi nag munagul a am ndax li mu yore matalewu ko. am amaguma xar fi mu ne nii si moom laa nekk nii maa ngi si yoon yi moom laay uti ji nii dem naa stade de l'amitié dem naa Liberté 6 waaw mais c'est un peu difficile déjà fi mu tombeel weer bi sori na booleex dëkk bi jafe na vraiment c'est pas facile si ñi nga xam borom njaboot moom metti na xar yi cher na trop. bi nga xam ni moom ay rido rek lay ñaw feet bi ni mu ko giseegum dalagul xelam. méttiwaay moom bettuñu mais ren laa gën a métti ak Covid bi passé ak événement yi Sonko Macky ñoo gën a pire affaire nag ñoom ñaar dal ñooñu ñooñu sonal waaye yàlla baax na man daa ma xam waaye maa ngi gis gars yi xotti daal. tabaski 2023 ñu taseel duñ ko gaaw a fàtte ñu dem. ba ci jëlee ay jàngat. li ma yore daal ci loolu laay ute kii nii amul kër ndaw kii nii li ma yore daal ci laay ut tabaski benn yoon lay am ci at bi donc nga préparé ko moo gën bon yàlla ndëg moom mooy dogal. jar naa waajal moom koy ku fi jógee bu boo amuloo nga yar ab ab xar tuuti eh, ba ba eh, yar pour déwén. tabaski nag bokk na ci feet yi gën a mag yu jullit yi di màggal at bu jot fii ci Sénégal nag at bi manifester yi fi amoon. mu indi woon coow lu bari nit ñi tax seen fit dalul benn yoon looloo tax sax ñu ne laal na leen bu baax. xarum tabaskit bokk na ci li tëj bopp borom kër yu bari Ousmane dem fukki lay jar ci bërëb bi xar bi gën a cher juróom-benn fukki junni lay jar bu ci gën a yomb fanweeru junni jaaykat bi jàpp na ni ñëpp mën nañ am xaru tabaski. ah parce que bu tabaski ki jotee nii. liñ leen jaayee par rapport liñ leen di jaayee tabaski ak liñ leen di jaayee lu newut tabaski bu tabaski ki jotee dañu wàññi prix yi. waaye ca daral bu kawoon ay clients yuy ñaxtu lañ fa fekk ni xar yi chéré moo leen jaaxal. mais xar yi moom cher na lool xar mu ci gën ndaw ay cent cinquante mille cent quatre-vingt mille bon loolu dafa métti tamit ci borom kër yi. dem loolu xar yi cher na de cher na lool ah, cher jaaykat yi di ñu xamal li waral seeraayu xar yi. li ñuy jëlee woto bi daa seer ñu ñëw fii ndok ñëwut. compte bi seer loolu moo tax kari seer saaku ripa bi rek danga koy jëndee see euh, ñetti junne ak ñaar téeméer nga koy jëndee mbokk bi tamit noonu waaw trop xar xar ñëwul gol at at bii de yaakaar suba gannaaw suba danaa cher trop par mo de affaire cher parce que xar xar bi euh, euh, saaku rakkal bi cher na ñetti junne ak ñaari téeméer nguur gi waroon naa jël ay matuwaayam ngir dimbale askanam di xalaatu client bile loolu moom état moo ci mën a jàppale mais pas ñun parce que ñun moom dañuy dajale rek pour mën a jënd sama xaalis sum toll xañ na keneen toll fa keneen fu xaalisam toll xañ na sama xaalis toll fa mais nag tey ji bu état jàppalee tamit dund gi wàññeeku transport bi wàññeeku kon jël xar yi day yomb. ak lim ci mënta doon borom kër yi ci jaaxle bu métti lay nekk ay fan dong des ci tabaski bi ba léegi ñu bëri amaguñu xar. dina Ousmane Dem ñu waxtaaleen leneen moo di livreur yi di ñor euh, moto yi di doxi course suñu naan leen ay càq-càq am nañu lu leen metti li leen metti mooy bu ñu nee ñoxor jóob rek ñu génne arrêté ne leen bu ñu fi dawati mu di loolu nag lim leen di yàqal bari na seen yoon bokkul ci manifester yi politique te ñax gu wow dafay lakk lakkaale gu tooy bëgg nañu état bi di leen bàyyi xel ndax ca seen moto yooyee ci la seen teraanga wékkee sonn nañu tey yaa ngi bëgg a jéggi dayoo ñu teewlu kàddu yi Maguette Guèye mi ngi bokk ci association des professionnels et exploitants des deux roues fii ci Sénégal ñu teewlu ko ci kàddu yi mu dénk Mame Biram Diouf caméra Mar je pense que ne euh, boo amee ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ñu ngi yëngu ci dara ci liggéey te à chaque fois boo génnee arrêté ñu respecté arrêté bi je pense que un moment donné aussi il est temps que nga wooleen leen toog waxtaan ak ñoom jël seen xalaat ba pare remercier la parce que ñun ñi nga xam ne entreprise lañ yor ak quelques même des individuels ah heure bu arrêté bi génnee dañ koy arrêté parce que ñun loolu la ngeen mënal ñu teg dara ñu ne ah nañ leen si jàppale nañ leen xool nañ leen di accompagner même suñ si d'accord ñu nit yoo xam ne lii mooy seen liggéey liggéey bii lañ am moom la ñuy xëy di gontu yow bu problème amee rek nga ne buñ daw mais man loolu daf may commencé bëgg a jaaxal parce que tey ana suñu police ana suñu gendarmerie am nañ police bu xarañ ak gendarmerie bu xarañ boo xam ne war nañ mën a maîtriser situation bi dañ naan borom dëru dañuy def naka sudul noonu mais du borom dëru yëpp ñu dem naka sudul noonu ñu ngi leen nañ nañ xool nañu organiser woo teel leen toog ak ñu nekk si secteur que lii mënut a continuer mënuñu nekk si économie bu difficile boo xam ne jeunes yi ñu ngi góorgóorlu seen bopp xool nu ñuy def ba génn si chacun essaie de survivre léegi ñu bëgg toll foo xam ne bu dara xewee rek ñu ne gars yi bu leen liggéey attention tey deux roues toll nañ foo xam ne ñoom ñoo yor 80 pour cent de l' économie parce que joxalante bi fa la àdduna toll jokkalante bi fa la àdduna toll te def naa fenn ci àdduna bi kenn mësul gis président de la république toog remercier livreur yi te président de la république def na ko naa Covid 19 bi gars yi ñoo doon génn si mbedd bi feebar boo xam ne kenn mënu koo gis di reyante ak moom loolu jeunes yi rek ko fi def kon ñii lañ. député ci assemblée nationale jëm ci vacances euh, lu aju ci euh, débat yi ñeel oriento orientation budgétaire bi gannaaw ba ñu ko defee euh, ca la ñu dem nag war a noppalu ji la leen mën a yóbbaa ci assemblée nationale rek xëy na moo di procédure d'urgence ñoom député yi nag def nañu xayma jëm ci session bu njëkk bi am na yu bari yooyu xew na ca assemblée nationale ñu ne bu fekkente ne am nay jéego yooyu def nañu ko gis nañ daal ci wàllu débat yi proposition yi moom wute nag la fa doon am am ñenn ca ñooñ dañoo jàpp ne lu aju ci askan wi war nañoo xool ñuy tànn ndax jikko yi ñuy wane assemblée nationale loolu lépp ñu ànd ci ak Alhassane Ba ak Alioune Diagne ci ay leeral. bi mooy gulet muy toogal askan wi ci pencum ndaw réew mi moom mi nga xamante ni ci Yewwi Askan Wi la bokk jàpp liñ doon xaar ci moom jot na ko def. dañ naan député dafa am ay fonction yoo xamante ne si loolu la war a def dafa war a voter loi dafa war a voter contrôler action yi nga xamante ne mooy action gouvernementale def suivi des politiques publiques loolu ñun juguñu ci bi ñu ñëwee ba léegi depuis bi ñuy installé le 12 septembre ba léegi ci loolu lañ nekk. pour député bi nga xamante ni mooy Cheikh Abdou Mbacké du député yëpp ñoo def li nga xamante ni moom lañ daan xaar ci ñoom. parce que li ëpp ñu gën ko fee wax wala ñu gën ko fee gis mooy. ab xeex ak xuloo ndax boo xoolee bi ñuy ubbi ensemble national bi ñu koy ubbi xeex la woon ak xuloo tey ñu war koo tëj aussi mu nekkaat xeex ak xuloo te loolu askan wi xaaruñu si loolu. te aussi tamit di apprécier président de la république ci wax bi mu wax parce que ensemble bi dañ ko war a tas. parce que ñëpp amoon nañ njot ak yaakaar gu rafet ni comme doole yi xaw nañu timboo waxtaan wi dana xaw a gën a ñol waaye du tànn rek kon tànnin bi war nañ ko xoolaat ba xam ni fii ñëw ñana may wax nag fu waay mënta féete. ñu ngi leen di invité ñu ànd ak dal ànd ak yiw ndax loolu lañ ñu doyee ndax jongante ci xel la. assemblée nationale di saytu waaye itam di woote budget yi moom mii di aji mergan kanute rafetlu performance yi nga xamante ni jot nañ ko enregistré atub 2012 ba léegi. 2012 bi ñu fi ñëw budget bi dafa toll ci 2441 milliards tey ñu am prévision 7000 milliards loolu am na solo rawatina muy budget boo xam ne dafa nekk toujours un budget social. ci lañ génnee muy 2023 2024 bu ñu xoolee tamit li nga xam ne moom la ñu tëral social bi am na ciy solo donc président Macky Sall lépp lu ko soxal mooy askanu Sénégal. donte sax jàpp nañ ne ci législature bi débat yi am na solo lool. wante nag jàpp nañ ne ñoom député yi surtout yu fare ci kujje gi assemblée national toogoon na lu yàgg dajewuñu ñoom député yi surtout que saisiroon nañ ko ci lu jëm ci ay questions d'actualité. mu doon léthargie boo xamante ne si léthargie bu métti la. loolu jàpp naa ne les euh, session ubbi loolu warul am. bu weesoo session bi député yi daañu tàmbali seen vacances parlementaires waaye nag du doon lu yàgg ndax jiitu réew mi Macky Sall wax na ne dana saisir député yi en procédure d'urgence ginnaaw bu mu jotee li tukkee ci li nga xamante ni moom mooy dialogue nationale bi. dialogue national boobee mu daanale mu Alhassane Ba am na ci recommandation yi benn boo xam ne dafay sàkku ci ñuy amal ci réew bi service militaire obligatoire loole nag fële ci diwaanu Ndar am na ñu ko rafetlu am ca ñooñ moom. Eh, dañoo toog rek euh, seleng lu ca li tubaab naan prudence ndax euh, bu ñu sukkandikoo ci gis-gisu ñi nga xam ne ancien militaire lañu recommandation yi bokk ci dialogue national bi lu jar bàyyi xel la ndax dana soppi lu bare bari ci jikko yi dana tegit gune yi ci yoon wu gën a baax naka noonu it euh, yeneen yi ngëneel yooyu gis nañu ko ci Ousseynou Diop Habib sek reportage ca Ndar service militaire obligatoire bokk ci recommandation yi ñu def ci lu jëm ci dialogue national bi moo ne day lu nu mel yenn cay xale yi nga xamante ni ñoo ngi ci diwaanu Ndar géej ñii bu fekkee ni rafetlu nañ ko ña ca des itam xamuñu sax lan la ñuy wax. ku bëgg a def na nga def rek mais man sama classe defuñu de. Uh-huh. waaw mool am solo la. te puis dina dina indi patriotisme ci ci ci ci ci ci nit ñi parce que dinañ leen jàngal aussi li nga xamante ni moom mooy lu bare bare. mu mel na service militaire obligatoire doon na loo xamante ni tey jile bu fekkee ni tënku nañ ci jaar ci ni coow. mën na am loo xamante ni mën na ko indi réew mi loole mooy xalaatu ñenn ci ay anciens militaires yu ñu dajeel. ji dafa jaaru ñu ñu ñu aspect militaire boobu noonu ñu mën ko dugal ci ci dundu askan wi euh, sunu jeunes yi nii ñu former leen surtout nag rawatina réew mi fi mu toll nii. dem nañ ba def service obligatoire militaire day fekk ni ëllëgee tey bu ndawoon ba soxla donte suñu egg ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu nu egg foofu sax waaye tey bu demee ba nga soxla da ngay ñëw rek sëq dugalaat ndax ñoom jot nañ am tàggat bi ba pare. ñoom ci seen i gis-gis dina tax lu jëm ci wàllu ndaw ñi tey ji la ñu xam seen bopp bu baax a baax xam fan la ñuy teg seen i tànk ba kenn du leen këf. te bu nu bëggee développé dara mënu ko doxal lu dul ay ndaw yoo xam ni dañ leen tàggat ñu am patriotisme am civisme te ñëpp xam nañu armée moom ku ko wax ñaar ñoo ñooñu ñooy sook li gën a wóor pour mën a dugg ci loolu te donc ku fa génn ñaar yooyu faw faw nga génnaale ko bu fekkee ni ci wàllu dialogue national bi service militaire obligatoire daan koy dëxan ci yenn cay recommandation ci diwaan Ndar géej moom askan wi ñenn ñi dañ koo rafetlu ñu jàpp ni loolee mën a tax xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu gën leen a tàggat waaye tamit teg leen ci yoon ba ñu xam bu baax a baax fan la ñuy teg seeni tànk tey ci altine ji mooy bëccëg bi ñu jagleel xeex wàllu dorog ñun nag jaare nañu cee waxtaan ak professeur Idrissa Ba mooy coordonateur bu centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar ñu naan ko CEPIAD dëkk na ak ñun ci nit ki bu tàmmee dorog la ko ca mën a fekk ak lam ko mën a jural ñu ànd ci leeral ak Fatou Bintou Conté ñu wees dañoo seetlu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi dañoo li nga xam ne ci ay saisies am doole ci lu jëm ci wàllum drogue dure te moo ne di dañu criminaliser li nga xam ne moom moo di stupéfiant bii nga xam ne moom moo di drogue ndax dañoo seetlu ne ab addiction la ci ñenn ñi surtout ci jeunes yi lee te ñu ci bëri nag xamuñu li nga xam ne moom moo di risque bi. addiction mooy jëfandikoo sinabar bu tar bu nga xam ne ci euh, du bu tar sax même booy tox benn yoon wala booy piqûre benn yoon wala booy fóon benn yoon. Euh, wala ngay naan benn yoon loolu mën na indi complication complication bi bi ñu gën a ragal mooy li ñuy wax overdose overdose maanaam nit ki bu ko jëlee mën na ko yóbbu rapidement ci saasi. Euh, yeneen complication yi mooy ce qu'on appelle ay complication si ci wàllum xel mën na nax sa xel-xel bi am na ñu nga xam ne ñu bari am na ñu feebaru xel te jëfandikoo sinébar ñoom moo ko indi xam naa loolu sax moo tax ñu doon wax toxicomanie mm-hmm. mais en dehors problème mën na aussi problème Euh, santé physique maanaam mën na jàpp xel bi mën na jàpp yaram bi yaram bi mën na nekk feebaru sida mën na nekk li ñuy wax hépatite C hépatite B et cetera et cetera mën na nekk feebar cardiaque mën na nekk euh, luy jàpp lu ñuy wax roño yi mooy rein yi wala luy jàpp xëtër bi mooy foie et cetera mën na jàpp bëti am ñoo xam ne sax dañuy dem ba silmaxa li nga xam ne moom moo di addiction ci drogue dafa nekk loo xam ne ab réalité la fii ci Sénégal psychiatre bi ak addictologue bi di ñu xamal ni jamono ji nag la war a def moom moo di di plaider li nga xam ne moom moo di traitement bi te bañ di jàpp jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo. lool loolu la loolu la recherche yi wane en tout cas ñi ci gëstu xam nañ ñu feebaru euh, jëfandikoo sinébar parce que du ñëpp koy jëfandikoo du ñëpp ñooy dem ba dépendance ñi nga xam ne dañu dem ba dépendance feebar la ci ñoom te feebar bi feebar bi la ci yuur bi donc te am na ay garab yu nga xam ne mën na ko faj mën nañ ko diagnostiquer mais aussi mën nañ ko faj donc affaire addiction encore une fois du problème mu délinquance problème mu feebar la parce que bu ñu tegoon fii yàmba ñu nekk fukki nit fukki ñëpp fukki yëpp duñ ko jël. boo xoolee ci fukk yi ñett ñoo koy jël. Sénégal nag nekk na dëkk bu njëkk ci Afrique de l'Ouest am benn centre de prise en charge ci ñi nga xam ne ñoom ñuy jëfandikoo li nga xam ne moom moo di drogue te mu nekk ab addiction ci ñoom te nag bi li centre réalisation yi am doole def na ko fi bu nu dégloo ki nga xam ne moom moo di coordonnateur am. te bi ñu commencé ak léegi centre bi dafa am succès bu nga xam ne bu tara tara tar ba nga xam ne centre bi léegi ñëpp xam nañ ko mooy premier centre bu xam ne créé nañ ko ci Afrique de l'Ouest Afrique sowu jant. te léegi jur na boo demee dëkk yu bëri ñu ngi ñëw fii di def ay stage pour xool centre bi naka la ñuy fonctionner pour ñu mën ko def Côte d'Ivoire def na ko ubbi nañu centre 2021 li ñu ubbi ci ay dossier man na ñeenti junni jur dossiers yi nga xam ne ubbi nañ ko ñuy jëfandikoo parce que xeetu Sénégal yi dafa bu ñu koy lim fii duñ fi jóge mais boo xoolee ñaata ñaari pàcc la ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo sinébar ñi nga xam ne jëfandikoo noo sinébar mais dañu am addiction li ñuy wax comportementale sans substance mooy ñi nga xam ne dañuy carte wure xaalis. tey nag ñuy célébrer li nga xam ne moom moo di journée internationale de lutte contre la drogue addictologue bi di ñu fàttali nag que ne xeex bi fi mu toll nii nekkul ci rek li nga xam ne moom moo di abi bi wante it traitement bi am na ci solo les gens avant nit ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jiital mooy li nga xam ne moom moo di thème bi nga xam ne moom la ñu choisir ci ren jii bi. ñu waxtaanee wàllu tàggajaram ak football seetlu nañu ne ay footballkat yu ñu ràññee ci équipe national bu football bu Sénégal jël nañu yoonu Arabie Saoudite dem da ca football yi bokk na ci kalidu kuliba li ñu signé démb contrat ñetti at diggam ak club bii di Al Hilal Edouard nañu koy séntu ci Al Ali mu di lool nag bu dee lu baax ci ñoom la ci wàllu koom ak yu ni mel ndax du indi yenn jafe-jafe ci euh, seenub taxawaay ci équipe national bu Sénégal leerali Mamadou Ndiaye. ndax discours bi Aliou Cissé amaloon ci atum 2019 jamono yooyu coach bi dafa waxoon ne bépp joueur bu jéewul ci championnat yu mag yi du la woo ci biir teñeer bi ñu samp ab laaj ndax discoursu coach bi dina changé bu ñu seetloo depuis bu ñu jógee ci coupe du monde Qatar 2022 seetlu nañ ne fi mu ne nii golf bi daal mu nekk destination joueur yi mag yi maanaam cadre bi ci équipe nationale ku ci mel ni Kalidou Koulibaly ak Mendy ñiy fas yéene jubali fële ca Arabie Saoudite. c'est une question d'actualité euh, aujourd'hui euh, euh, léegi nag mën naa wax ni euh, yëf yi day euh, évoluer ndaxte depuis bi nga xamante ni mooy coupe du monde euh, ñu koy waaj fële ca Qatar championnat boo xamante ni bu may bàyyi xel la man ak sama staf ñu ngi ci xool di xool joueurs yi nga xamante ni. ay sénégalais di ba di jouer ci championnat yooyu eh, dañ leen di suivre léegi eh, mën na jàpp ni eh, fi mu ne nii yëf yi na bu baax ndaxte championnat boo xamante ne fi mu ne nii ñu mat a ñu mat a bàyyi xel lañu. je pense que on peut dire que oui ça peut ça peut gannaaw France Belgique Italie ak Angleterre. kii di capitaine Koulibaly fas yéene découvrir juróomeeli championnat am fële ci Arabie Saoudite contrat bi mu signé ko démb ñu xayma ko ci 15 milliards de francs fa mu nekk contrat bu mag a mag keneen ki ñu seetlu ko di gardien équipe nationale bi di Edouard Mendy fas yéene jubal yi fële ci Al Ahli transfert am bi fas yéene na ko officialisé tey jii ci altine ji euh, ndax nag choix financier la mun nañ koo njort ndaxte la ñuy wax xaalis yi ñuy wax bari na lool ba jéggi na dayo ba képp koo xamante ni bi yaakaar nga ne war nga mën a defar sa après saison foofu nga jëm gis nañ joueurs yi tudd léegi ñu fa dem beneen njàngat bi ñu a def mooy sélectionneur national dafa waxoon ne moom

fas yéene fa fekk ji kii di Cristiano Ronaldo Karim Benzema ak Ngolo Kanté ñu fay leen koppar gu baree bare yoo xamante ni joueurs yi am seen at mënuñu ko bañ. Mamadou Ndiaye jërëjëf mbokk yi ne ngeen jëf ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20 di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane jot ci xibaaru tubaab yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm bu suba ak jàmm.